asalaamaaleykum mbokk internet IGFM ak IGFM euh, TV ñu ngi am mbégte ak contenté émission entretien spécial monsieur Moustapha Diakhaté Moustapha Diakhaté euh, c'est l'ancien est président du groupe parlementaire et actuellement président du mouvement politique euh, Sénégal euh, mouvement pour la république et la démocratie donc je suis en compagnie de M. Daoudemine chroniqueur judiciaire maison. Euh, directeur de IGFM alaikum Daoula. Oui, salam Arona Je suis lay nuyu di la tatagal euh, di heureux de recevoir fi Moustapha Diakhaté dëgg yàlla di am contentement ci le fait que ñu woo ko mu wuy suñu euh, di ku ñu xam nag parce que j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de partager plateau avec moi. surtout l'édition édition spéciale que nous avons organisée pour à la TFM suite à des événements majeurs au Sénégal et à chaque fois mu nekk nga de dañu xam-xamam naw xelam naw courage am si idées yu nga xamante ne daf koy développer également di ko soutenir bañ amul euh, xaaj ak seen en fait euh, à chaque fois bu nga xamante ne gëm na benn mbir da koy wax avec la la conviction qui s'y est di ko gërëm di ko sant encore une fois ci wuy si bu mu ñëwuju wuy si di ko tatagal encore une fois voilà donc merci Daouda donc man Moustapha Diakhaté euh, kenn di ko présenté ci ci Sénégal man je l'appelle l'intellectuel le grand intellectuel <laughs> l'homme vraiment qui a, qui, a une liberté de penser vraiment sans, sans, limite. Alors je salue aussi la présence de M. Québec, notre ami Québec, l'homme de l'ombre. Voilà, euh, salam alaikum Moustapha, dalal jàmm IGFM TV. Euh, waaleykum salaam wa rahmatulah salam ngi lay fay Aruna de la nuyu di nuyu Daouda euh, dama wax ne euh, le ko le la général des chroniqueurs judiciaires di nuyu waa IGFM ak waa IGFM TV ak waa groupe Futurs de yëpp nuyu Sénégal yi nga xamni ñu ngi nuy sétane té ñaan Yalla ñu fekk leen ci jamm té wax jin bi wax nek deug tam jëriñ mhm. alors euh, Moustapha donc vendredi euh, passé amna euh, ben un mouvement euh, bu tudd art du Sénégal mouvement pour la république et la démocratie Il ko lancé au moment où Ousmane Sonko ak Diomaye Faye bu ñu génnee prison di def sen conférence de presse alors amna une presse bi sax ñun titré nañu agacé par la l'amnistie de Sonko.

aar leen ci fitnay politicien parce que am dafa am ñetti événement yu xew ci réew mi deux mille vingt et un ak léegi mille vingt et ba ba mars deux mille vingt ba deux mille vingt ay fitna yu bari dafa am ci réew mi ay mbooloo faatu fi ay mbooloo blessé fi ay alalu réew mi yàqu fi alalu doomu réew mi yàqu fi alalu doxandéem yàqu fi ñu jóge ca am beneen événement bu xew boo xam ne le trois février la xew président Macky Sall. xey xey décret bi mu signé won pour convoquer le corps électoral pour ñu fal benen président mu ni dindi na té lolu amu ci benn sañ-sañ bu ko ci constitution bi parce que muy euh, tentative de report bi euh, beneen bi ci def moy mu jël amnistie fitna yi amone 2021 ba 2023 mu mu ne mu ne amatul ñetti musibe yi dal rew mi nak jàpp naa ne képp koo xam ne Sénégal nekk na sa yitte war nga xeex ba duutu am xeex ba duutu am mooy benn politicien ci ay caaxaanam dootu indil fitna ji dal Sénégal diggante deux mille vingt et ak léegi parce que en réalité les événements deux mille vingt et un ak ci caaxaan rek la jógee Sénégal yàgg na am conflit politique deux mille mille neuf amoon na conflit entre PAI ak Senghor ak Mamadou Dia. 1962 à mon tension diggante Mamadou Dia ak Senghor 1963 à mon tension Bambolo Fatou. 1968 à mon tension 88 93 2000 c'est la première fois dans l'histoire du Sénégal ay été jóge ci lo xamné la du politique benn bi ci président de la république président de la république bu mandat di jeex ci walu élection lenn dong la ko constitution bi sant wala yar bok ben bi moy bu desee bu mandaam desee juroom ñetti fukki fan mu wote mu convoquer le corps électoral su mandat bi desee ñeent fukki fan ak juróom wala fan fanweeri fan mu mu fixer date date élection bi ñaar yi dong la ko constitution bi sant constitution bi sant ko mu wote ba pare ne da koy dindi ma japp ne bi des moy amnistie bi musiba yi amone ko rappelé ñett yi bu fekkente ne jóguñu matuwaay jóguñu nañu war a jóge lu ko yees mën na or dans une démocratie qui se considère comme majeure comme normal lu mel ni mënu fa am loolu bokk na ci li tax ñu ñu créé euh, mën tour mouvement bi tuddé ko aar doomi Sénégal nek guma président bi pour le moment je suis le fondateur parce que mouvement bi dama bëgg mu woté yi fi am dama bëgg mouvement bu jóge ci suuf jëm ci kaw wala mu jóge ci kaw wacc ci suuf président yooyu man gëmuma ko li ma jàpp li ma jàpp mooy war nañ ko organiser dans les différentes communes du Sénégal dans les 557 communes dans les huit circonscriptions de la diaspora mu jóge ci kaw jëm ci suuf muy loo xam ne mbooloo mi ñoo koy bokk muy un un mouvement collectif mouvement bi aussi dama bëgg mu nekk un mouvement de réseau c'est-à-dire au lieu que nit ñi nekk di di politique rek dama bëgg c'est-à-dire kenn ku bëgg kuy dugg ku ne ñu ne la demal nga sos benn groupe d'action bo xamné ne fukki nit a bok buñ amé ñu amee 10 comités groupes d'action dans dans chaque commune ça va nous faire environ cinquante cinq membres yu teg su baba nak lañuy sos mouvement bi waaye dama bëggul mënoon na tok toog nag tëju defar sama sama règlement intérieur defar sama programme def conférence de presse présenté ko déedéet dama bëgg muy mouvement bo xamné ne day jóge ci souf jëm ci kaw parce que mouvement bi askan wi ñoko mom même les groupes d'action nam dañu def politique waaye dama bëgg ñuy def loo xam day concerner fa dëkk quartier ba dëkk village ba dëkk ci wàllu set setal ci sécurité ci solidarité ci wàllu jàppalante mouvement ñoo groupe bu ne ci liggéey parce que li xew Sénégal mooy politiciens yi dañuy utiliser nit ñi rek pour jariñoo leen mais duñ mais duñu bàyyi duñu organiser politiciens yi ba ñoom ñu mën a quartier dëkk encore une fois c'est un mouvement boo xam dama bëgg mu nekk mouvement bu mouvement bu collectif waaye la ko fondamentalement comme ni ma ko aar doomi Sénégalais, yi défendre la république parce que nag république bi xaw naa màbb démocratie bi aussi xajamal nañ ko trop li Macky Sall bëgg mujj def muy amnistie bi muy tentative malsaine de reporter l'élection pour man c'est un scandale et ça doit révulser tout le monde maintenant nag daje na effectivement li ngay wax ni mais loolu tax ko woon jóg parce que si avait prévu ça depuis très longtemps quand même. waaw mais bu ñu déggee da nga def benn diagnostic te diagnostic bi nga def euh, principalement ñaari nit wala boog euh, le président Macky Sall ñaari moom lañ ko mën a imputer ñeneen ñi nga xamante ne mën nañ leen imputer peut-être un certain nombre de responsabilités mooy principalement waa Pastef yi nga xamante ne jàpp nañ leen ci affaire manifestation ba finalement euh, ñoom ñoo nekk les principaux bénéficiaires de la loi d'amnésie. tey ji bu fekkee ni da nga ne da ngay créer benn mouvement concrètement le mouvement là lan mooy doon soloom est-ce que dafay nekk ko nga xamante ne dafay jàmmaarloog président de la République ba bu bëggee jël benn décision nga ne ko du fi dal wala da ngay jàmmaarloog ñi nga xamante ne peut-être def nañ ay ñaaw ñaawteef wala bëgg nañoo def ñaawteef ba nga xamante ne da ngay jàmmaalook ñoom ne leen lii du fi dal. loolu yëpp a ngi ci d' abord euh, bu ñu waxantee dëgg suñu diggante yàlla diggante deux mille vingt et un tey bu dee yi fi amoon muy fit euh, fitna ji loolu waa Pastef ñoom ñoo ko sokke waaye ndàqum élection yi. Macky Sall la waaw dëgg la. Euh, amnistie bi. Hmm. Macky Sall la. Hmm. c'est-à-dire gis nga daaw bu ñu waxante suñu diggante yàlla ñun Sénégalais ku ne xool sa bopp te yàlla rek tax. ñaar ñi teg fitna Sénégal dëgg-dëgg. Macky Sall ak Ousmane Sonko. waaw ah mais bien sûr parce que Macky Sall an ay nit yu rey ay nit lakk ay nit yàq alalu réew mi yàq alalu doomu jàmm nga xëy xëy bàyyi leen démb am na ci ku ñu libéré ko ñoo xam ne libéré nañ leen ñu ñoo doon filer le juge Maham Diallo pour rey jël seen woto def ci numéro auto numéro moto heureusement que les forces de défense ont été suffisamment pour jàpp leen. ñoo ñu mag Sall bàyyi nañ leen bàyyi na leen démb loolu si un scandale et bu fekkonte ne li mu laytoo ne moo tax mu def ko day dëgg man dinaa ko mën a comprendre mais da koo laytoo ba loolu moo tax mu def ko parce que nag Sénégal am yéen xam ngeen yéen a ngi fi woon bi ñu jàppee Sonko ba ba le 3 mars mais réew mi jàmm a ngi fi woon nit ñi dox seen soxla candidat yi wut nañ seen fiche de parrainage wut seen caution ak sera ba déposé seen kan conseil na ni ñi ñooy bokk Sénégal a dem mu xëy xëy ne damay dàq élection yi tekki ne damay amnistie yi ñuy def lu bon lépp loolu Macky Sall tëru ko d'abord tëru ko fenn mais lay wi mu lay amut naan woy pacification décrispation cohésion nationale déedéet loolu tox koo jóg leneen na ko tax a jóg. lan moo ko xam nga réalité dañ koo wax ne ko ma maam Amadou Ba mi ngi négocier ak ñoom Sonko et que su faloo dina leen libere te bu leen libere sax mën naa mu dugal leen ci gouvernement bi. te xëy na sax ministre de la moom lañ koy jox pour mu faagaagal la yow ak sa njaboot ah mu jox instruction Aïssata Tall Sall ne ko libéral ñoom Sonko ah bien sûr ñu Aïssata wax ko pour magistrat yi ñu bañ ba tëdd fi su ne duñ ko def maintenant puisque les magistrats avaient refusé il n'y avait pas de solution mu contourner leen par une loi d'amnistie la seen loi s'impose aux magistrats mënuñ ci dara encore une fois loolu ay ay ay ay ay wax la bi te nag mooy bokku na ci li tax muy def li lii c'était pour une volonté manifeste de torpiller sa candidature la candidature de Amadou Ba maintenant man que Amadou Ba def nako dara wala def ko dara c'est pas ça mon débat parce que dama japp ne lu ko Amadou mu meuna def du c'est pas le millième de ce que Sonko lui a fait lu ko c'est pas lu ko lu Amadou Ba meuna def c'est pas le millième de ce que Sonko a fait à notre pays suma ma dem te la la tapis rouge Ousmane Sonko wana meuna mën Amadou Ba mais mais foofu li ñu comprendre moi, le président Macky Sall moom si boppam moom moo choisir euh, Amadou Ba comme étant le candidat de la coalition bernard Bokk Bari won nañu nga xamantene sampon nañ sen seen dënd ba finalement moom mu choisir Amadou Ba ba wax ni c'est un choix de raison et non pas un choix un choix de cœur nan lañu mëna comprendre ki nga xamantene mom nga choisir comme mu nek sa candidat ba pare ngay wëlbatu ko en même temps diko ko defal ay ndëgg sërëx. fondamentalement li euh, ndëgg sërëx yi. Hmm. la ko lal mooy. ñaaw maanaam toog na ne wala boog xam gëmloo nañ ko ne Amadou Ba su faloo dina ko war te bu ko waree dina ko sànq aussi simple que ça mu changé idée ci Amadou Ba mais effectivement Amadou Ba Macky saal moo ko tànnal ba Amadou Amadou Ba n'était même pas candidat moi personnellement wax na ma raison yi tax mu tànn ko parce que moo ma ne Amadou Ba ñaari raison fondamentale moo tax ma tànn ko d'abord un xarañ na deux nit ku dal la waye dafa dem ba genn ci tay ku waxante dëgg yàlla xam ne Amadou Ba nepp lu le candidat en tout cas ni de cœur ni de raison de Macky Sall loolu moy li am xeyna nak nag xam nga li ñaan bay bay na mbuss ah moo tax xëy mu mu ne gaaji dem leen defi campagne mais en réalité wax deug yalla c'est un soutien du bout des lèvres je n'ai jamais vu eh, un candidat nga diko soutenir dox leen Barack Obama bi muy soutenir ki Biden mais il était descendu sur le terrain mo jabaram mais d'ailleurs boo xool sax depuis le depuis même bi mu ko bi mu bi mu tànnee Ba y' a eu pas d' enthousiasme du côté de Macky Sall or damaa jàpp ne ginnaaw xas nga ko def ba pare moom li ñu naan li wala nit bu sombee dara na ko naan c'est-à-dire que dafa neex ak la ci naqari moi personnellement Macky Sall bi may ñëw ci moom dama bàyyi Abdoulaye Wade ak teraangaam ñëw ànd ak moom di ca gis lu ma naqari ak lu ma neex taxul ma ma xëpp ko sànni kon encore une fois et malheureusement mer yu mu mer. D'accord, les institutions de la république c'est moo grave. xeexee ko am capacité de d'amnistier parce que l'initiative des lois appartient au président au premier ministre et aux députés il a une majorité parlementaire mu jaar ci ñoom bàyyi ñoo xam ne musiba def nañ ko ci réew mi mu jël aussi dans les ko institution bi yor un cap yo signé décret mu décret c'est en toute illégalité parce que décret buy dàq bu dindi décret bu corps électoral loolu constitution bi mayu ko encore une fois c'est dommage que man dama li ma jaaxal Daouda yéen leen jaaxal man li ma jaaxal mooy moo gën a garaaw xam nga tax parce que quand même sénégalais bu ne war naa nangu ni mag Sall di génn ci réew mi diggante 2012 ak léegi def na fi loo xam ne bët mën na koo gis def na fi loo xam ne loxo mën na ci teg mu xëy ci 3 minutes mu mab lépp bi mu nee du nekk candidat mais àdduna bépp ci béggoon sénégalais yi bi adduna bépp ji mu nekk le président le plus respecté du monde le plus choyé mu xëy en 3 minutes mu mab lépp loolu man gisuma lu ko war a jar ci moom. cest à ay ay dañ Amadou Ba bu faloo dalay wor loolu jëru ko parce que de façon Amadou Ba bu xasee falu président la République mais kan moo ko convaincre ci loolu. ah xaw ma ko de façon manifestement il est convaincu de ça. parce que ni mu comporté woon mënul nekk lu jàpp ne waa ji ma tànn xëy na bu bu faloo dina ma war man personnellement li ma gëm et ça je lui dis à tout le monde defe naa ne maanaam mobiliser wu ba Amadou Ba falu. bu subaa ñu tàmbali koo xeex moo gën ngay caaxaan ba <laughs> di caaxaan ba fokkat yi yor réew mi mais c'est man nak Moussa point bobu lu tax ñew ñu tu penses ay faux carte lañu té bu ñu mi du mëna tax non nak xam nga bu dé bu dé bu dé wa wa passé fi d'abord fitna ji indi ci réew mi waye wax deug yalla bi élection yi bi campagne bi commencé ak légui rawati ni bi bayé cioma ak tonku légui ça que sénégal yi xam nañ ñaar yëf ñaar yëf mom xam nañ ko un lim na doon wax nan am nañ procès du deux amuñu programme bu baax parce que jomay mom néna programme bu ko bind ci yakanti ñett kenn ku ne gis na ni bu bu Sonko taxawee Diomaye c'est-à-dire Jom Diomaye mooy candidat boo xam ne dañ koo boot c'est le seul candidat depuis 1960 bu ñu boot nga xam ne day mel ne pour candidat bi mën a jàll il faut que leaderu parti bi wuuf ko nguufaan ko te Sénégal yi ñu fal ku ñu nguufaan Sénégal président de la République la ñu ko kon encore une fois dama jàpp ne pexe ba parce que ak Amadou Ba lu mu sikk-sikk au moins ku ne xam na ne bu ñu ko falee président de la République man mën naa yorum réew deuxièmement man Macky Sall moo ma li tax mu tànn ko mooy day nit ku dal te nag Sénégal ñett ñi moom jàpp naa ñoo fi gën a xam ku ku mën a nekk président la bi muy président Abdou Diouf président Abdoulaye Wade ak ak Macky Sall te mack Sall man personnellement moo man li tax ma tànn mack Sall dama euh, Amadou Ba pardon xam naa ne mat na président la bi mais malheureusement avec ces trucs mais mo manifestement léegi ci quoi que si xel yi dellu si nañ waa Benno mobiliser nañ maintenant man personnellement li tax ma jàpp ne Amadou Ba moo gën ci ci candidat yi mooy moom kese Moi, fi empêcher à Pasteur de gagner la présidence. mais mais mais que foofu mais est-ce que yaakaaruloo euh, Ousmane Sonko et Diomaye ils sont conséquents avec eux-mêmes dans la mesure où nous, à chaque fois projet lañ le projet était porté. par Ousmane Sonko. par le, voilà par le parti et Ousmane Sonko est moo nekkoon tête de file bi. bi ñu Ousmane Sonko a été invalidé. Monsieur si Bopom, vu que moom le leader mo nek le leader toujours ñu daal di koy bàyyi pour que mu choisir ki nga xamante ne moom mooy doon candidat bi mu choisir jomay fay donc est-ce que yaakaaroo ne c'est normal que moom également bu fekkee dafa génn que jomay mun koo jox nopp que mu koy déglu étant entendu que moom c'est pas ça le débat c'est-à-dire que le débat li nga wax nii c'est cohérent bon d'abord projet bi ñu doon wax moom amul maanaam parce que xam nga bi ñu njëkkee euh, programme élection pour le 25 février mm. génnewul nañ ab document tuddee ko le programme de jomay mm. bi yëf yi jaxasoo lañ indiwaat beneen programme tuddee ko le projet waaye sëñ bi boo ko xoolee xam ne li du liggéey bu sell loolu jomaay ci boppam moo ko waxal boppam mu ne seen programme bi bi tudd projet dañ koo liggéey ci yàkkamti moo tax baaxul kon encore une fois mooy lan booy boo jëmee ci élection présidentielle da nga koy préparer sérieusement mais lii nga programme bi bu baax a baax waaw parce que ñoom am nañ ay propositions concrètes quand même yu nga xamante ne c'est des propositions de ruine de ruine du Sénégal lé mais yow dama nga ne daaw defe nga fi aduna toll. bu ñu nee war nañ changer mais wax ay économie endogène. non non non mais tay buñ né par exemple. Bah, mais yooyu waxu dof la. non non non mais waxu dof la. mais mais mais. taw c' pas ça les problèmes du Sénégal. ay changement de monnaie ca sa capital bi ci kër. mais Moussa Fall mais Moussa Fall problème la ci leen <laughs> tey. waaw tey boo da nga fi wax. le président Macky Sall son bilan matériel amna duñu mëna toucher mais son problème fondamental c'est son bilan immatériel bon là aussi une nuance ah non bye après me poser question après après donc donc chaque fois que wax c'est son bilan immatériel moom me pose problème. Uh-huh. Tay bo xolé le PASTEF le projet bi ñuy wax ñom principalement li nga xamantene dañ ko def ci programme ça touche li ñuy les institutions tay yi dañ la wax ni dañuy réformer la justice. voilà dañuy réformer la justice faire en sorte que le président le conseil supérieur de la magistrature faire en sorte que le procureur de la république du amati des pouvoirs le ministre de la justice da des instructions écrites Faire en sorte que le conseil constitutionnel dañ koy dañ koy changer fexe ba nga am un juge des libertés bi nga entre le procureur et la prison mais ce sont des propositions que nga man j'estime que li nga xamantene sénégalais ñom ñom ñoom lañ daan jël comme étant des problèmes pour que indépendance de la justice nek lu nga xam lu consacré la loolu jàpp naa ne ñoom bu ko défé dina nek lu nga xamantene dina bax nga daaw do boo ma wax ci justice. hmm sénégalais yi lay déglu dañ lay bayyi xel. Mhm. yow xam nga ne. Mhm. problème justice. Mhm. du problème bi politicien bi tudd. bis bu set nga dem tribunal ay junni junni niveau ñëw pour justice di régler sen problème.

en matière judiciaire. Or, c'est le président qui définit la politique pénale du pays. Le parquet est chargé de mettre en œuvre cette politique pénale. Quand la ñuy changé na président de la république D'autres définir la politique de la pénale du Sénégal c'est les magistrats qui définissent la politique pénale du Sénégal et baba, nous tombons dans ce qu'on appelle la république des juges loolu proposition c'est une ineptie. c'est une ineptie. Hmm bi ci des ñu ne cour cour constitutionnel ak conseil constitutionnel daaw da xam nga lan la ñu war def dissoudre conseil constitutionnel jël ay prérogatives yóbbu ko cour suprême le Sénégal est le seul pays au monde boo xam ne am cour suprême ak conseil ak conseil constitutionnel c'est une incongruité institutionnelle. ça veut dire que donc day nekk benn chambre. quoi bien sûr fi amoon. Mm. cour suprême moo yoroon mbirum li conseil constitutionnel cour suprême moo ko par exemple Abdou Diouf fait le président de la cour suprême tas créer cour de cassation cour des comptes cour conseil constitutionnel Abdoulaye Wade bi mu ñëwee mu delloo si waat cour suprême da caa waroon da ko waroon na boole yóbbaale cour conseil constitutionnel loolu mooy réforme bu am njëriñ bàyyi ay cour constitutionnelle ça c'est pour les petites démocraties là yiy du démb Sénégal weesu na ay réew yi ñu il bëgg a tugal ay Mali ki yooyu quand même c'est-à-dire vraiment ku ñuy kooku moom vraiment. ay ay ñàkkam donc problème bi du cour constitutionnelle nañ ko delloo prérogative am nañ ko delloo maintenant xam nga jamono ji boo nee nañ distul conseil constitutionnel rek coow li ne ko laaj mais je crois que bu ñu demee ba pënd bi wuri liberté nag bon c'est pas pour man waaw c'est pas une mauvaise chose parce que en réalité boo gisee suite des libertés am njëriñ mooy euh, day tax euh, du du procureur bi rek mooy am baat ci nit ki ñu jox ko sañ-sañ loolu lu am njëriñ la mais japp naa ne ay cour constitutionnel ak yooyu moom ay waxtaan et puis nak Daouda yow yang ci yang jaxo justice Sénégal xam nga justice Sénégal ban problème lañ am magistrat yi doyut greffier yi doyuñu huissier notaire yi doyuñu avocat yi doyuñu voilà le problème du Sénégal mais système bi aussi baaxul oh, non non ma non système amna ayib amna ayib non amna ayib non amna parce que le ma les les le affaire les procureurs ont trop trop de pouvoir c'est japp qui intérêt de le juge de liberté bu encadrer en fait dire wañi doole ji nga xamné droit de vie et de mort des poursuites mais am solo problème bi am le deug nga xam mom la Sénégalais magistrat parce que magistrat yu la durée des détention et des procédures Ben, notaire yu c'est-à-dire, la seule ville d'Abidjan a plus de notaires que toute la, République du Sénégal. Les avocats, de nous, pratiquement, ils sont concentrés à Dakar. Alors que pourtant, les autres Sénégalais, ils n'ont qu'un département, mais ils sont droits à une justice. Donc, on réforme, moi, un, évidemment, on doit changer qui bire, mais fondamentalement, il y a des magistrats, des avocats, des y notaires, il greffiers, japp na ne lolou bok na ci la grande maintenant lolou nag boko digé nit ñi aussi da nga leen wara wax fo jël xaalis parce que en réalité man ci lii ñaari programme laa liiragut mais programme yépp c'est des professions de foi yi compris même celui de Amadou Ba parce que un programme da nga wara a ni da nga wara def diagnostic ni jàngoro ji la bëgg a ni la koy fajee xaalis bi la koy fajee xaalis bi fi la koy jëlé amu ci ñom kenn ko def y compris Amadou Ba y compris Amadou Ba alors que c'est lui, lui le plus outillé pour pour pour proposer les ma wax ni chiffrer son programme parce qu'il a les outils parce que boo les programme ni normalement ce qui manque c'est fondamentalement le chiffrage parce que le chiffrage moi tax ñu xam xaalis bi lan lay jar parce que état xaalisam fi muy jógee bëriwut say impôt yow ak man ak ñun ñi moi qui lay mooy le état ak les taxes ak les Bori, impôt ëllëg la taxe ëllëg la donc état yow boobu ba amee sa particularité le programme du candidat moy li mu ne bu ma lay def mais li mu ne moom bu ma faloo moom lay def da koy donc xaalis lay jar war na malheureusement les 19 candidats loolu defuñu ko loolu day prouver encore une fois très sincèrement que les politiciens sénégalais respecté wuñ peuple sénégalais gis nga programme yi nga gis bi kenn ñemewu ko France kenn ñëw ko États-Unis un programme da nga koy chiffré nit xam lan la lan lay jël est-ce que xaalisu état bi attan na wala attanu ko boobaa ñu di si débat fan nga koy jëlee ndax da nga yokk impôt bi wala ndax da nga yokk ñi fay impôt ndax da nga yokk taxi wala ndax da nga yokk li ñuy fay taxi loolu da nga ko a expliquer nit ñi mais malheureusement ay profession de poids lañ présente et c'est pas des programmes. alors Moustapha yow euh, euh, Moustapha Amadou Ba nga soutenir officiellement. alors est-ce que tu penses pas que le soutien timide et tardif du président de la République pour handicaper, <laughs> handicaper un peu votre candidat, surtout devant. Est-ce que nous hein? <laughs> oui, mais je pense libérer nos fonds bon même si. Ah, ben, euh, voilà quoi est-ce que l'on ça ne va pas l'handicaper surtout devant vraiment cette la populaire. Ça, pouvait, ça pouvait mais je crois qu'il y a un ben regain euh, euh le même dire une sorte de rébellion citoyenne ak militante parce parce que en réalité <laughs> militant est responsable xam nañ ne Amadou Ba échoué c'est le de Macky Sall or oh, ce qui est bizarre dans tout ça c'est que Macky Sall Mok Senghor ñoo nar ñoo a les deux seuls présidents pour le moment yoo xam ne dañuy jóge ci pouvoir te duñ fa jóge par une défaite politique électorale Senghor dafa toog ba mu ba mu nekk mu jox Abdou Macky Sall deux mandats daa jeex mu ne bokkul kon yàlla baaxee na ko ba moom du jóge ci élection par une défaite électorale mais candidat bi mu tànn su fekkente ne dafa échoué mais c'est une défaite politique l'échec de Amadou Ba c'est l'échec de Macky Sall mais li gëna grave du loolu nit ñi àndoon ak Macky Sall 2009 2008 ba légui bam palu ñu and ak mom pendant 12 ans ci ay ay ay ay ay benké ñenké ala lim mu nar leen sacrifier parce que ñoo ñu and ak mom ñi nek benno yori responsabilité wala affaire mais xam nañu ne ñom bu fekkante ne seen kan da gañe wut ah seen ëlëk dina lëndën ma japp nak loolu ñom jiwuñu ko Macky Sall ek waru leen fayé fayee encore une fois je crois que c'est vrai il y a ça c'est difficile mais pour le moment depuis la depuis le week-end en tout cas boo xoolee même Amadou Ba apparemment yéex na sax dimi yéex ko jëlee ci premier ministre parce que nag quand il a pris un peu de l'envol oui, de la de l'épaisseur c'est vrai que même waaw euh, ah, oui oui il a une bonne présence waaw xam nga xam nga tant qu'il il était premier ministre mhm. <laughs> Macky Sall da koy wuuf mhm. mi ngi mel ne Diomaye ak Sonko Sonko ko <laughs> Sonko ko boot et je crois très honnêtement bu Sonko son prison Diomaye def campagne je crois campagne am dana am beneen allure quoi donc mag Amadou Ba hier hier naa et là le président am ci raison parce que le président pensait qu'il aurait dû partir plus tôt bon lui il a pensé que vaut mieux rester mais je crois que ku on fan yi ni muy doxalee dëpp ko ci gouvernement notamment il a pris de l'envergure quoi et d'ailleurs boo xoolee même des gens qui étaient réticents même ci ci m'ont en tant que premier ministre ñoom ñëpp ñi ngi ñëw di mobiliser maintenant pour moi, man waa APR waa benn duñu sama problème sama problème moi ni nga xam ne si amuñu projet amuñu programme teg fitna jiñ teg Sénégal ñooñu lu waaye mën a def pour ñu bañ a jàll moom gis nga man Daouda sama engagement politique toujours dafa am raison yu tax de 1987 boobu maa ngi université dama jóg dem ci président Abdoulaye Wade ne ko damay adhéré si PDS mu ne ma lu tax ma ne ko damaa gis ci landerneau politique bi yow kese yaa ci mën a indi alternance Sénégal yaa fi mën a jëlee parti socialiste mu ne ma loolu de wax nga dëgg ma nekk fi ba mu falu 2009 bi ma xoolee Abdoulaye Wade mu bëgg a jël doom jox ko parti bi réew mi te ma jàpp ne donnante ay ay ay ndomba tànk moom nañ ko bàyyi tarixa yi te bañ ko dugg ci état bi moo tax ma tàggook moom ànd ak ànd ak Macky Sall ci lan lan jotee troisième mandat kon man am na loo xam ne mooy tax may may may yëngu ci politique su soutien bi may soutien soutenir Amadou Ba aussi c'est pour maanaam participer pour pour pour faire barrage à l'arrivée au pouvoir au Sénégal du populisme qui donc peut être un danger pour nous. mais, Moussafa, Mais yow yow bu la on a l'impression que da nga un problème personnel avec Agua Pasteur. non non on a. l'impression. non on a on a on a l'impression. parce que même question vous nous posez poser une question da on est ramener toujours. ci ci Pasteur. C'est mal absolu. bon alors que tey vous bu présidentiel, wax présidentielle c'est la rencontre d'une personne avec le peuple est-ce que yaakaaruloo ne sénégalais également am la liberté de choisir japonais ni Amadou Ba peut-être ñom moy sen meilleur profil mais am ñeneen ñu nga xamante ne ñoom jàpp nañ ni Ousmane Sonko ak Diomaye moy ñi nga xamante ñom ñoo gën ci réew c'est que la démocratie d'abord la campagne électorale moy mhm. c'est l'affrontement entre des propositions c'est ça entre des programmes mhm. entre des idées des diagnostics des solutions mhm. c'est-à-dire que bu fekkonte ne am na ben benn fukk juroom fuk yu tegal ben nit yu kanaso ba mëna fal Diomaye mais am nañ droit fal ko man loolu laa gëm parce que xam nga <laughs> démocratie dafa Idrissa Seck moo ko daan wax parfois bon ça faisait mal a ñi ko doon dégg mais dañoo xamul fii Idrissa di waxee fi mu naan euh, maanaam <laughs> jun junniy dof moo ma gënal juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeenti wàlliyu loolu lay tekki démocratie moom question la mbooloo bu fekkente ne sénégal yi jàpp nañ ne ñii fi indi fitna diggante deux mille vingt et un ci ay caaxaan ñii am ne woon am nañ projet te indi wuñ ko. ñi nga xam ne am nañ seen programme candidat bi nee na programme bi baaxul parce que dañ ko bind ci lu yàkkamti ñi nga xam ne ñi ngi gis candidat bi mutu sax bëkk néegu euh, euh, son leader politique buñ koy buñ ko ñemee jox réew mi nañ ko jox foofu aussi simple que ça lu mel ni lii Hitler amoon na Allemagne Allemagne di caaxaan ba bàyyi Hitler ba mu falu dafa taal Allemagne àdduna man bëgguma jox réew mi ñoo xam dañ koy taal or le projet de de de de Pastef le programme de Pastef le comportement de Pasteur et de Ousmane Sonko c'est des programmes qui entraîneront inéluctablement fait que que à la ruine du pays et moi, je ne ma ko mais foo Je loolu foo teg yow nit ku ñu dem élection nga un programme bi Le programme bi lan nga ciy le euh, capital de na ko yóbbu Ziguinchor Mansour c'est une autre idée et je l'ai dit au président de la je lui avais dit que le quatrième palais du Sénégal parce qu'il y a trois y a il y a trois bi bu mag bi Gorée avec bi nekk le quatrième palais doit être construit à Ziguinchor avec des commodités il faut tenir fa tenir conseil des ministres sous président de la république ñëw ñu mën koo parce que ça va donner à la Casamance une plus grande un plus grand sentiment d'appartenance à l'unité au Sénégal c'est quoi que proposition de gën ay naan dañu war de capitale de non capitale de Ziguinchor est mon idée c'est que la capitale du doit être construite autour de Thiès Tasset euh, Fanden noto guy jamaas ak euh, dëkku mbay jonn bi mu ñaan mm. zone bobu pour man c'est l'espace idéal pour construire la République d'abord c'est djegena aéroport bi djegena na port portu Ndayane bi dana djegé port Dakar ensuite soriwul Ndakaaru lool donc encore une fois je crois que ay yóbbu Ziguinchor bi loolu xëy na da ko waxoon pour mobiliser mbokki Ousmane Sonko yi yi nga xam ils sont déçus que même que Sonko ne soit pas candidat bon xëy lool motax mais bon ay maintenant guen ci mon CFA xam nga dawda deug na fi sen studio bi Khadim bama jagn wax ko gis nga ñun buñu jappé né France da warta da wara génné génne CFA dañoo war France CFA gis nga euh, la BCEAO pour ñu jëlé ko France indi ko Sénégal indi ko Afrique c'était la croix et la bannière l'ancien gouverneur Fadiga même kidnappé nañ domam ci ci muy gorgolu ñu ñafé ba indi ba trapatrie ko Afrique euh, def siège bi Sénégal Sénégal qui fait partie les organismes yu Afrique mas a créé Sénégal qui leader yi la bok. ngay xalé bu ndaw juddu ba ko dem amoo jaar-jaar politique naan way dañuy génn UEMOA dañuy génn CEDEAO dañuy wut suñu moné bop Sénégal lim soxla mooy gën a dugg bu baax gën a duggante ak waa C waa gën a duggante ak waa e parce que contrairement aux autres pays ñun nous sommes un pays enclavé dans l'union parce que ñun fiñ positionné la ñun li war def mooy pexe ba créer des des capitaines d'industrie de forces de frappe yoo xam ne dañuy conquérir le marché mauritanien le marché gambien le marché guinéen de Bissau Guinée Conakry ak ak le reste de l'UEMOA et de la CEDEAO loolu la Sénégal war a góorgóorlu waaye di wax waxu caaxaan naan économie endogène économie endogène Sénégal weesu na foofu Sénégal li mu war a def mooy une avoir une économie mondialisée at attirer adduna bi yëpp ñëw fi di investir di fi defi usine comme ni ñu demee Chine wala ñu ñu di ko demee Turquie ñun ci loolu waaye naan économie endogène maanaam Sénégal mënatul a

même l'offre libérale même un ci programme yi quoi parce que réalité bo xolé gars c'est un programme de repose sur un élément c'est l'étatisme manam kenn ko ne da nga bëgg doole ji Macky Sall yor nga yor ko amu ci kenn bëgg soppi Sénégal ba neub ba état bi ñu ci reum or man mais quand même je dois à la vérité de le dire parce que bo jëlé sen projet ils ont dit que l'hyper président présidentialisme dañ koy dañ koy wañi ils ah. ont ils ont même dit. Oui? ils ont même dit <laughs> que li nga xamante mom ngay combattre tay jii que le président bu démé ba jël yenn décision yenn ñu mën a def sax ben déclencher ben procédure d' comme ça se passe. par exemple lolu ils ont même dit que les ministres yi nga responsabilité sur le plan pénal en ce qui concerne la gestion des budgets il faut que nous créions les mécanismes yi nga poursuivre ah. donc nous ils ont fait des propositions que maanaam sans cela nañ dem xooli le code de transparence de de moi nga nga nga mhm. ça fait pas des pathologies du pays mhm. maanaam Fébarou Sénégal beaucoup na ca l'hyperprésidentiel parce qu'à réalité damay wax toujours le Sénégal le premier monarque sénégalais mhm. c'est pas Ndiaye Ndiaye c'est pas Lat Dior c'est Senghor parce que bim mu 5e constitution de la 5e république bu France bi daf ko jox manam muy bour di bummi moy l'hyper présidentiel waye ñom dañu né xam nga déjà ben président bi ñun lim yor da ëpp ñom nénañ dañu wut ñaari président mais li gëna graw ci loolu du loolu nee nañ dindi premier ministre bi kon l'hyperprésidentialisme bi ñu ne moom la ñuy dañ ko yokk parce que au moins premier ministre am nañ pouvoir or buñ dindé pouvoir dañ koy bolé mu nek ci ñaari président té nak gis nga affaire manam ñaari mbalka yu nan ci ci ci ci ci teen xawma ci mbalka ñaari kuy ñaari kuy dan ci mbalka mm-hmm. sénégal mos na ko ba nopi 1962 tout réew mi tàkk te ko naron tal ça c'est une proposition insipide amul njariñ li am solo moy nañu président de la république cest l'état na yam ci li nga xam état rek ko man muy affaire justice

nga xam ne dañ doon bay ba yàgg ñu toog ñëw ndakaaru def di def marchand ambulant ba yàgg ñu nekk ay ay ak grand homme d'affaires ak industriel ku leen jàpp ku leen pousse ñu dem loolu moo gën état bi nekk fi di naan damay créer emploi damay créer Prodac damay créer Dakar de loolu du liggéeyu état secteur privé na sax quand même yow yow Daouda xam nga ne Alaaji Njaga Njaay ci wàllu transport am na lu mu ci def am na lu ci def boo demee ci ñoom euh, kii nam tor ci euh, euh, Sénégal Tour mais ngeen baal ma ci publicité bi am na lu ci def tey jii fii nu nekk nii di di groupe Futur Média yéen xam nga am en matière d'audience wax dëgg yàlla nag yéen a jiitu tele bu mag bi télé bu njëkk bi du dëgg donc secteur privé bi ñun lañ moo war a moo mën a développer réew waaye du ay état buy un état interventionniste day delloom réew gannaaw boo demee turc c'est le secteur privé moo ko développé soo demee Chine malgré que c'est un pays communiste c'est le secteur privé chinois mooy développer la Chine kon Sénégal bu ñu bëggee mu jëm ca kanam dañuy wàññi doole yi état ci koom gi ak ci yu bari malheureusement nag candidat yëpp dix neuf yi kenn ku ne li ngay góor góorgóorlu mooy fexe ba doole mag Sall ji nga yor ko waaye bëggoo wàññi doole Macky Sall et c'est dommage. Moustapha à part euh, Diomaye euh, Amadou Ba am na yeneen candidat il y a au moins deux.

ñu amoon nañ góorgóorlu woon ca mais ñu ci def ñëpp pour le moment kenn chiffré wu dañu toog na ba faru door a chiffré loolu du noonu cest à boo boo bëggee laaj baatu réew mi da nga te wax naan lii laa bëgg a def may bëgg a def lay jar li muy jar fii laa koy jëlee bu ko defee nit ñi xam ndax da nga yokk seen impôt wala déet wala ndax ñu daan wu fay impôt daañu fay impôt wala déet ndax liñ daawul tegi taxe dañ koy dañ ciy tegi taxe wala déet ndax taxe yi ñu woyofaloon koy diisal mais da war a wax nit ñi waaye maanaam politicien Sénégal dañu yor jikko ku yoddu soxal

la toute puissance de l'État sénégalais man foofu laa ñu xaar parce que ñoom loolu bu ñu ko waxee day yenu mën a par exemple bon Babacar Ngom Sedima ngeen bal ma ci publicité bi mais wane na ne un privé par peut partir de rien réaliser quelque chose bi mu réaliser Déthié Fall il est dans une entreprise privée boo xam ne kan ci suñu kanam la juddu màgg fi man ma jàppoon na ñoom bu ñu ñëwee la ñu indi mooy ak sëriñ Mboup sëriñ bu bàyyam bu dellu si waat woon adduna dina kontaan ci moom parce que lim fi fi mu fi mu yënd yëf yi bàyyi baara bàyyi wu ko fi woon kon encore une fois ñooñu man dama jàpp ne ñoom ñoo waroon a indi beneen discours de rupture nette par rapport à la centralité de l'État dans dans la dans les affaires économiques et sociales et malheureusement defuñu ko dañoo toppandoo ñu topp mbumbaayum politiciens yi ba finalement seen discours amul benn originalité ah, euh, am na benn euh, contribution bi nga publier démb par rapport euh, à ton soutien Amadou Ba mais am un euh, élément bu <laughs> dans ton dans dans ton analyse nga euh, ton soutien ne sera pas un soutien aveugle hein? tu seras vigilant par rapport à l'immobilisme à l'exercice solitaire du pouvoir et surtout à l'alliance encore <laughs> avec son. Euh, euh, Est-ce que tu, à la limite, tu ne serais pas un, un soutien encombrant Non, non, du tout. Ah, je crois qu'Amadou va quand même. Ah, ouais, mais soutien, vous savez déjà, il y a Demain à dire. Non, non, non, quand j'ai démissionné du PDS, dafa me texte de ma publié woon wax lu tax ma bàyyi PDS ak lu tax ma ñëw ci Macky Sall. Non, ba tey moo ñëwaat ba damay jàppale Amadou effectivement pour me faire barrage. ah Pastef puisque je le soutiens pour que mu def barrage ak ñoom mais il n'est pas question que muy muy allié ñoom benn immobilisme bi nag dafa doy c'est depuis 1960 l'état moom la ñu moo fi buur du fi bummi loolu dafa war a dakk ñu wàññi cëram état bi concentré wu ci li nga xam ne état rek a ko mën te ñëpp soxla ko mu yem ca kon l'immobilisme du ma nangu lii nii ñu yore woon réew 1960 ba léegi ñu ñu ñu ñu di ko def bi des nag mooy si du euh, du pouvoir solitaire du pouvoir sëñ bi loolu jaaduwut démocratie c'est le dialogue permanent entre ñiy gouverner même ak le peuple peut-être sax mën ngaa bañ a dialoguer ak ak say opposition mais au moins looy def lu ne un bala nga koo def nga wax nga expliquer ko askan wi évidemment mu ne su la wax ak sénégalais bi mais au moins y la représentation nationale parce que loolu buñ bu ko doxalee day joxaat beneen envergure les institutions de la république

kay bawal gi nga kii wàllu euh, jolof gi nga xam ne miin na ko baax saa suñ masaan fal buur dañuy fal mi pour en pour que bu buur bi saayee wala mu def leneen bummi bi ñëw jël place am pour éviter la vacance du pouvoir vacance du pouvoir bi nga xam ne bu ñu defoon dañ ko am le 2 juillet le 2 avril bi ñu jëm kon encore une fois euh, ñun suñu ex vacance du pouvoir 2 avril waaw bu ñu defoon ndànk dañu am vacance du pouvoir le 2 avril bi ñu jëm. waaw ah, comment ah, ça bien sûr. conseil <laughs> xam nga conseil conseil moom day jox boppam loo xam ne kenn sant ko. mais réglé na ko tous xam nga problème bi il faut pas que ñun. non mais man constitution bi laa xam nga conseil conseil la bi ko bu doolee daawuda. waaw ah. bi la waaw ah, mais constitution waaye du non xam déglu ma conseil constitution gimiñu constitution bi waaye du constitution. waaw ah, d' accord mais Daouda du ma la jàngal dara yaa ma gën a xam li may wax. Ah, daa mais mais foofu aussi li ma la fay wax. mooy constitution bi ci boppam comme nanga ne moom mooy ndeyu charte mhm. moom moo ne conseil constitutionnel ci article 92. waaw moom mooy ki nga xamante ne moom mooy juge élection yi. Je suis en nga plénitude de juridiction en matière électorale moom mooy lu nga xamante ne su fekkee ne am flou wala bu fekkee ne lu ñuy Le conseil constitutionnel moom moo koy maintenant maintenant conseil constitutionnel est na su fekkee ne dañoo organiser élection le 24 même processus bu le président Macky Sall fait rester jusqu'à l'installation de son successeur ce qui fait que le 2 avril bi moom à continuer toog Vacances, bi vacance bi fan lay c'est une interprétation extrême substantive am nañ droit def ko quand même. non non xam nga article boobu li muy wax mooy ci biir mandat bi. président bu ñu ko falee. bu xaram bu ñu ko falee. c'est pas parce que fal nañ ko automatiquement daa war a ñëw dugg palais déedéet parce que pour mu dugg palais il faut que conseil constitutionnel jël serment boobu article loolu la concerné. waaye situation bii nu jëm le deux. su ah. fekkee Macky Sall xëy démissionné ñu installé Mame

yooyu affaire naxa naxa la naxa naxa malheureusement heureusement heureusement pour le peuple sénégalais malgré ces naxa naxa yi malgré ces fitna ji delu nañ ba xamné politique nak ay proposition la ay idée la waye du gatsa gatsa du mortel combat du. est-ce que loolu sax avec le temps buñ def prison. est-ce que loolu après.

kii wax lii kii wax lii mais moom moo ñëw def conférence presse pour xas xas nit mais li ci gën a garaaw nag mooy léegi euh, ne du wax mburoog soow moo diggante ak Macky Sall damay wax ne sombe ak soow lañ <laughs> ñoom ñaar parce que keroog c'est la première fois ñu a président la rek. ban la Macky ne peut-être nga xamante moom sax il l'a en plus grand mm. dans ci bi muy wax boo ko dégloo di nga xam ne mm. Mm. gars am na ñu doon ñëw ci moom am nañu am am di jóge ci moom di dem ci Macky Sall boo ko dégloo di nga xam ne mi ngi ci biir wax ji waaye nag yëf yi wees na foofu. fu mu fu mu nekk ah, wax lañ def négocier. <laughs> waaw toog waxtaan. Mm-hmm. waaw loolu nag yéen journaliste yi dem leen ngeen gëstu rek. waaw waaw mais waaw mais am na am na ñu luñ mais ñun am na luñ téye mais ba tax xam nga bu baax yéen a may suivre man mm-hmm. dama bokkul ci politiciens yi nga xam ne damaa war def révélation mm-hmm. man gëw ma ne politicien daa war def révélation gis nga révélation yéen ñii yéen a ko moom. waaw ah, mais mais man du ma def révélation mais li wër ci moom mooy ñoom ñaar. dama ne ñoom ñaar weesu nañu ci weesu nañu ci yónnee ndaw non mun nañu la pousser ba nga def révélation. sur plateau dama ne dama ne Macky Sall ak Sonko. waaw weesu nañu ci. na mu tuddati yóbbu yónnee ndaw dañoo rencontré wu euh, ah? dañoo rencontré wu. ah njot jot ko njotul ma njuk. xaw na xam nga li ma bëgg a wax te <laughs> njortul ma njuum. donc ñëw weesu nañu ma njuum daal moom ni naar ci benn ci ci benn xur njort naa ni xur wee am na naar <laughs> mooy njortul ma am nga ci loola leer ah waaye dama ne xam nga cest à bu ñu fontoo sénégalais yi quoi hmm. bu ñu fontoo sénégalais et puis y a pas de mal à ça hmm. Ablaye Wade jàpp nañ ko fii bien que lañ jàppee Ablaye Wade ak li ñu jàppee Sonko du benn hmm. Abdoulaye Wade moom affaire politique la kii moom affaire njaaloo yu indi indi jafe-jafe la jógee. mais ah mais c'est la vérité non c'est la vérité non euh, waa Sénégal man li tax may am yéen problème. bu mbir ñuulee au lieu ngeen ne daa ñuul da nga naan weexut. man lu ñuul dama naan daa ñuul waaye yéen nag da ngeen naan weexut <laughs> loolu dama cee dugg donc moom moom de parce que en réalité Sonko moo am dafa am intérêt négocier ak Macky Sall parce que gëmoon na moom à un moment donné que bu ñu ko jàppee balaa bu ñu ko jàppee dix heures balaa midi gone yi ñëw génne ko kaso jàppoon na ne bu bokkul ci élection yi dëkk bi dina tàkk jàpp nañ ko cinquante cinq jours këram mënut a génn yóbbu ko sebi xotaan mënut a génn yóbbu ko euh, hôpital principal ak bloc leen te réew mi ni ci jàmm kon xam ne lam foogoon wala lañ ko doon wax ne ko bu ñu ko jàppee dina loolu amu ci kon moom xam na ne la ko dugal la ko maanaam li ñu naan xob la ko dugal ci pax génnewu ko ci moom xam na ko dugal ci guta mënu ko caa génne muy mbooloo mi mu yaakaaroon ak ah, xëy na la ko ci mënoon a génne mooy li ñoom <laughs> Alioune Tine Pierre Goudiaby Atépa dimbali ko hmm. ba mu jokko ba muy jokko Macky Sall ba génn kaso naa loolu pour man laa put income a Macky Sall ay saay-saay yu def li ñu def ci réew mi ay mbooloo faatu ci ay fen ay al mbooloo balesi fi ci ay lu dul dëgg mbooloo seen mbooloo alalu réew mi yàqu fi alalu doomu réew mi yàqu alalu nga ñemee toog di négocier ak moom yëmuloo foofu ña defoon lañ defoon ci lu bon lépp c'est une trahison du peuple sénégalais c'est une trahison des forces de défense et de sécurité des gendarmerie et police c'est une trahison de la magistrature sénégalaise c'est une trahison des administrateurs civils gouverneurs et préfets du Sénégal et suprême. Oui, mais si vous la ce discours yëpp da nga ne man dama parce que je bëgg barrer la route à Pasteur. C'est ce discours donc yow ànduloo ko Amadou Ba. parce que ah, il a le meilleur profil. Ah, sur si 19 candidats yi pour pour wax le meilleur profil parce que dama jàpp ne ñeent ñii ñoo gën a xam le meilleur profil d'un président de la République au Sénégal. le président Abdou Diouf. parce que nekkoon nako président Abdoulaye Wade nekkoon nako Macky Sall nekk na mm. Macky Sall moma ma ne. li tax ma tan Amadou Ba d'abord un nit ku xarañ la bi ñu des mooy nit ku dal la mat na président la mieux le président Sénégal émergent document bi mu bëggoo ñëw c'est un document bloc une sorte d'intention quoi de d'un catalogue d'intention Amadou Ba moo jël document bi dem tëju moo qui technicien ñu tëgg ko opérationnaliser le plan Sénégal émergent moi tax ba ñu Paris ñu mën ko financer parce que on ne peut pas financer des idées on finance des programmes c'est Amadou Ba qui a fait du, du plan Sénégal émergent des programmes de l'émergence kon le programme boobu am na liggéey bu 2014 ak léegi boo xam lu nit a fait. la ka ja man gëm naa ne bu ñu ko defee président bi mën a donc Macky Sall mi ma ne Amadou Ba mat na président bi d'accord naa ci parce que man Macky Sall a a nekk président de la république moo ma jàpp moom la maintenant du du barrage gi am na ci mais ba du barrage gi benn jour la barrage bi c'est le c'est le jour du bu jàllee cinq ans la c'est cinq ans qu'on va gouverner qu'on va donner de cinq ans ñu war a dénk réew mi c'est les cent quatre-vingt-dix-sept mille kilomètres carrés 5 ans nous avons les 19 millions de sénégalais 5 ans nous avons l'armée sénégalaise la gendarmerie la police les diplomates les universités les écoles 5 ans nous avons destin la direction du pays Nous avons ko dénk nit nous koy créé et Ba président gestion du Sénégal ce n'est pas simplement le niveau national il y a aussi l'international surtout le contexte géopolitique bi ñu nekk léegi. ak Sénégal pétrole est-ce que Amadou aussi a le carnet d'adresse sur le plan international l'expérience pour vraiment gérer cette situation. il a été ministre de l'économie des finances du Sénégal pendant presque 5 ans avant il était directeur général des impôts ensuite directeur général des impôts et domaines. ensuite premier euh, premier ministre ministre des affaires étrangères non il a il a il a il a non il il a le il il a le carnet d'adresse waaye le carnet d'adresse mais ah, lu baax la waaye doyul nag ah pour man président la république gis-gis la wax ni fii laa bëgg yóbbu réew mi nii laa ko fa yóbbu et je que quand même jaar-jaaram man de Macky moo ma ne. mat na président la te man Macky Sall moo ma gën xam nak mat président la ak ko matul donc encore fa fois lolu mom japp na ni bon c'est vrai nak gis nga c'est ñun wa Sénégal bu ñu foyee suñu xel yi quoi xam nga ñun am na ñeenti président de la république romel bi lañu bëgg fal Senghor biñ koy fal président de la république kenn rawu ko ci Sénégal kenn rew ko fi ci ñu gënoon a la bok am jaar-jaar nek député Abdou Diouf mi topp ci mom non seulement jàng na mais am na jaar-jaar nekk na gouverneur ministre ministre premier ministre pendant dix ans Abdoulaye Wade 36 ans d'opposition l'homme le plus diplômé du Cap euh, à Rabat nekk fi ministre nekk fi député de 1978 ak keroog bi muy dugg ci gouvernement Abdou Diouf mu nekk député donc am expérience Macky Sall ak loo ko mën a wax jàng na ni mu jàngee am na jaar-jaar. nekk na fi directeur nekk fi ministre ministre ministre nekk fi premier ministre nekk président assemblée nationale waaye yaxay ci mu laan bu ñu jox cinquième président la République waaye bu nañ fexe nag ba bu mu yées ñeent ñi jàll bu ñu ko jox gu ñaa fiya parce que lu garaaw li ñuy def gis nga daaw daaw domin koo bunt koo wóorul pour may ko sa doom booy dugg booy dugg isoloir bu ko wote bu ko wotee yow koo wóolul pour may sa doom bu boo dugg isoloir bu ko. bul ko woteel parce que. joxe dénkaane réew moo gën a garaaw may sa. mais Moustapha est est il faut impérativement nga am benn jaar-jaar nekk ministre nekk premier ministre nekk président assemblée nationale pour diriger réew. parce que gis nañ fi. gis nañ fi quand même ay nga en Afrique que mu à l'extérieur des présidents yu nga dañu amuñu expérience mais ils ont été d'excellents d'excellents d'excellents présidents non non non expérience côté bañ ko Cyril Cyril Cyril Soro un est-ce que est-ce actuellement syndicaliste mm-hmm. chevronné mm-hmm. Lula c'est un syndicaliste chevronné c'est-à-dire que ñoom c'est-à-dire nit ki def maanaam carrière politique am wala carrière sociale am dana participer ci personnalité parce que en réalité la un président de la République fondamentalement. Ah, mais mais Libéria fal na fal fal na fi un footballeur. mais bien sûr mais footballeur daan jaar jaar. waaw mais ah yow xam donc xarma non non yow xam nga ne. waaw waaw mais jaar jaar footballeur quand même ak politique c'est pas non non jaar jaar non non mais mais xam nga non non xam nga a ami diplôme. waaw mais néewuma da ngaa war a nekk ministre pour nekk un bon président déedéet ma des naa bañ a nekk lenn ci loolu. pour nekk un bon président la xaaral waaye nag damaa jàpp ne ndem ñi am e jaar jaar ñoo mën a ñoo mën a yi bon. Hmm. asamaan nag comme benn jaar jaar moo tax ma jàpp ne jaar jaar bi ak beneen yeneen ak yeneen yeneen profil bi yeneen attribut bi bokk na ci li nit war a am pour ñu dégg en tout cas ñun waa Sénégal 1960 ak léegi li nu tàmmal sunu réew mi mooy bu ñuy fal président fal koo xam ne ñamu ñamu jamono lool ñam kenn ëpp ko ci jaar-jaar loolu lañ tàmm naa bu fekkee nag Sénégal jàpp nañ dañoo war a jox réew mi ay aventuriers nañ ko def seen affaire la. waa mmh. li ma bëggoon wax foofu tey tey tey boo jëlee ku mel ne Jomaay Jomaay Faye non non <laughs> man man man man man man man ànd. waaw non non non non non non parce que <laughs> xam nga li ko waral li ko waral parce que yow yow lañ jàkkaar lool te critiques yi ngay. non non voilà ñun ay ñun ay journaliste lañ fii ñu jàkkaarloo yow. critiqué fa woo fi euh, Anta Babacar critiqué woo Karim Wade. critiqué Anta Babacar dans la non non non en fait en fait. non c'était juste. de de de la fin de l'état

mën na ñoo jël un footballeur hein. Ah. def ko un président de la République ah. lan mo mën empêcher les sénégalais ñu jël kenn ku nga xamantene bayma ba ñu jël kenn ku nga xamantene ne def na un concours très select. dugg ci école d'administration ñu formé fa ko mu génn nek nek un un fonctionnaire de l'État pendant une vingtaine d'années ah kooku nonu ba tay ji tay amo ben gak gak bu nga xam mën nga ko mën nga ko tegal problème voilà dama s'il y a 51% de l'électorat sénégalais qui sont prêts à élire, à, à élire Diomaye, il n'y a pas de problème pour moi. Les Sénégalais sont, sont, sont libres. Mais de toute façon, liberté, il y a Mais c'est le profil le moins intéressant bi la ngi koy wone su taxawee di wax mais suñ bi ñoom ñi bokk ñoom pat dañu am dañu am kersa deuxième chose li nga xam ne moom la ñu leen war a attee muy le programme moom ci boppam Diomaye moo ne programme bi baaxul ndax dañ ko bind ci yàkkamti kon encore fa am naa devoir man pour wax sénégalais yi ne bu len dof dof lu ba ñi ngeen jox len réew lool sañ naa ko maintenant bu sénégalais dof dof lu ba jox len ko nak seen affaire la hmm. waaw kon seen affaire la donc euh, dawla euh, voilà régie ñu ngi nane temps bi jeexna donc euh, mustapha ñu ngi lay gërëm de le remercier de le sant bu baax. Hmm. gis nga Arona. Hmm. dañuy wax toujours ne yéen journalistes yi da ngeen am ñetti cër ci réew mi yo xam yeen do nga ko am yéenay gimiñu réew mi yene bëtu réew mi yene nopp réew mi kon kuy waxal askan wi wala ngay wax ak askan ci yeen la koy jaarale kon man bu ngeen ma joxe micro man yeen la wara a gërëm mais waru leen ma gërëm. waaw waaw c' est merci beaucoup man maa leen war a gërëm ngi lay remercier aussi ci voilà euh, daw qui ki un bon journaliste parce que daw Daouda bis yalla sang di ko wax ñepp jëpp ku ne defee ne la kontaan c'est ça la bonne voix ah, en tout cas à la suite de Arona parce que mënu ñu la baña a merci

voilà Serge internautes j'allais dire j'ai wa, wa, régie hein. voilà donc euh, internet IGFM et IGFM euh, TV Nous avons été de de contenté émission entretien spécial M. Moustapha Djakate, ancien président du groupe parlementaire euh, Ben yakar et actuellement fondateur du mouvement Ardo Sénégal mouvement pour la République et la démocratie donc rendez-vous prochainement avec un autre invité merci beaucoup